pour diir vrai exposition bi xar yi gars yi liggéey nañ liggéey nañ yi indi nañ ay xar yoo xamante ne ay xaru qualité nañ loolu mu ngi wane ni gars yi ñu ngi amélioré parce que amélioré nañ wax quoi te comme lu gars yi di wax rek ku yokk lu yaa wàññi te gars yi yokk nañ niveau bi niveau bi kawe na trop tey suñu première exposition li ma jàngat moo nekk ni gars yi jox nañu ay conseil te yaakaar naa ni conseil yooyu moo ëpp solo ndax conseil yu ñu wax yaakaar naa ni fii ak suba dinañ ko gis su ma nee suba nekkul ginnaaw suba wala kii daa am benn last de temps boo xamante ne faaw ñu toog xaar ko pour mën a gis loolu noonu te gars yi ñu ngi ñuy jox ay ay conseils yoo xamante ne yaakaar naa ne incha allah dinañu dinañu njëriñ. baar lu mu bëgg a liggéey moo nekk comme ñeneen ñi lu ñu bëgg liggéey rek waaw ndax bëgg nañ liggéey si xaru qualité xar yoo xamante ne tey ku dugg sa gétt dina la nuyu ñaari loxo jox la respect ndax yaakaar naa ne yi moom benn niveau boo xamante ne. xar yi doo woo kenn xar yay woo nit yi te nag ku dugg sa gét nag dalaa war a jox respect nuyu la ñaari loxo tey indi nañ fi ay chouche ay chouche yoo xamante ne ko nañ si pédigré bu baax waaw comme kii ma tee kii sëtu Koromak la boo ko gisee nii benn portée la am mu ngi am benn portée en ce moment waat na waaw mu ngi si 17 mois nekk na xar boo xamante ne xar bu doy waar la ndax ku gis lim taawlu rek lim taawlu moom wax dëgg fa yàlla xel dal na yaakaar naa mbote bi mu taalu moom bu fi génnoon nii nii nii nii dina may xar yu bëri wet de dina may xar yu bëri wet te jigéen la nag waaw parce que da ngaa amoon embarras de choix sax pour tànn xar yi ñëw wax dëgg fa yàlla ndax qualité moom foo dugg jamono ji qualité qualité nga fay fekk te nag ñun si loolu nañuy dox suñu adam bi premier adam bi ñu bëgg a dem dañaa bëgg a dem wane suñu bopp wane suñu bopp moo nekk lan génnee ay bet yoo xamante ne suñu suus la ñun ñoo leen juddule parce que man lool la bëgg quoi gars yi xam ni nak ah ñu ngi woon seen ruq di liggéey lool mo ñu ñor lool lañ bëgg waaw lool moom bëgg nañ ko te gëm naan dinañ qualifier ndax ku gis lii nii exposition bi ni rien à dire hein, wax dëgg sa yàlla ndax ku fi ñëw tamit loolu nga may wax sa exposition bi rafet na élevage bi nañ boole ñu doon benn parce que da ngay dégg ñëpp di naan élevage bi ñun benn nañ mais xam nga rek loolu ce sont des paroles en l'air ce sont des paroles en l'air nañ yéenante jàmm ñu xam ni ñun ñoo mën a def si lii certes suñu borom nag bàyyi di xéewalu di suturloo suñu bopp waaye nañ nañ boole boobu doon benn parce que kii day jóge fii wax lii jóge fale dem wax leneen te loolu amul sens loolu yaakaar naa ni du boole mais day xaajali ñaan nañ ko yàlla moom wax dëgg fa yàlla waaw ñaan nañ yàlla albaari ñu koy dégg fépp si àdduna bi te incha dina am albaari mu ngi tudd la production bergerie albaari nag mu ngi nekk Yaraax juste en face gar Anne